pas normal lii c'est pas normal dafa ñaaw. gaa ñëpp problème bi ñëpp ñu la ñu ñoo def lépp ñu ñoo ko sookee ñu ñoo ko sookee waa Cossack waaw lii ay mbër ñëpp mbër ñu ñëpp créé la arène nationale arène nationale bu rafet def si ñaata milliards mbëri teggi saisi di ko sànni ñooñu ay nit lañu lii war ñu kon tëgg fii li ñu leen waroon yóbbu ba ginnaaw géej ñu signé fa seen compte comme kii bi lii du yoon c'est pas ñaata oto lañ ci yàq lii du yoon lii du yoon c'est pas normal waaw gars yi dañ naan porte plainte ñii la ñuy porte plainte waaw waa groupe état Futurs Médias la ñuy porte plainte Youssou Ndour si boppam la ñuy porte plainte waaw waaw liñ fi yàq bëri na ñaata nit lañ ci agressé liñ fi agressé dafa bëri plus de combien de moto lañ ci agressé c'est normal lii yoon li ñëpp koy ñaaw lii yoon xoolal maire ñu toj seen yi fii est ce yoon la. du yoon quoi. waaw bari na fi. leen fekk fii di leen di leen yàq ñoo xam ne ñu dara parce que ñun fii la fii leen dëkk. ah non en tout cas ñun c' la première fois. donc aussi bon lii c' pas responsable. parce que ñun ñoo ngi ñëw ku nekk gaare sa oto pour dalu tranquillement xëy liggéey. boo xamuñu woon sax tey dafa am signature contrat par la suite leen gis jékki-jékki mbëri ñëw rek xeeti jolli te bu fekkoon sax dañoo yàqale seen alal garaawal mais alal nit ñëpp lañ. xëy na ñooy responsable. effectivement c'est le promoteur. les gens qui l'ont organisé man ils ont caillassé mon véhicule. ils ont caillassé mon véhicule dama ko yóbbu fee ci ginnaaw cuune c'est le promoteur. ah bon sooy booy sooy. je vais je vais je vais appeler un huissier qui va constater dès demain je vais les porter plainte. parce que moi suis un voisin j'habite ici. j'avais dit si nit sooy organiser dara il faut faire appel à la sécurité pour cerner c'est ça la responsabilité vient du responsable de cosaan et du promoteur waaw maintenant on va se référer à la loi il y a des personnes qui sont habilitées de gérer voilà ces genres de problèmes là demain je vais faire appel à un huissier qui va constater je vais porter plainte